avant taxaw fii may def nii mu xaw a dëgër ma def nii mu dem may tourne di tourne di bu mu ne pëf fii la ma dóor léegi gaz bi lu mu ma dugg moo ma daanalee ginnaaw nii mu ma duggale moo ma daanalee ginnaaw léegi bu ma daanoo noonu ma jaxasoo ak gaz bi nu mu ma duggee noonu yaa ngi gis maa ngi foncé pour jéem a xëcc gaz bi ama dafa defam benn saa égaat buy nekk ci biir nekk loolu moo dañ moo tax mu mel ni robine buy bu ñu tijji ba mu sës man nii laa naroon aw mais dama jaxasu après noonu ba ma daanoo ginnaaw ci laa daw fekk sama rakk bi départ mu daw génn. xale mooy xale bu ndaw bu góor bi ci gaañu fan la bi muy fan la fan la nekkoon. waaw dafa yeew waroon dem école di xaar yaayam. xam naa xam nga rek yeewu suba teel nga war a dem école am na lu ñu lay seetaan da ngay mel ni moom fii la tëdd. waaw sama rakk bi jigéen bi nekkoon ci état te mu làqu tey fii la tëdd. sama mag bu góor. moom fii la tëddoon di nelaw moom it waaw fii dañ fi defoon benn genre lii bu ndaw mooy li ma la expliqué sànq yaa ngi gis léegi moom fii la tëdd ñetti nit ñooy ñi nga xamante ne ni ñoo nalawul essayé noonu à part man bañ ma yeeyee muy sama rakk bu jigéen bi sa waay jëloon keroog ak sama mère bi léegi mère bi fii daa amoon benn lii armoire yaa ngi gis fii chaise bi dañ fi tegoon c'est quelque chose léegi gaz bi mu ngi bi fii la nekk exemple juste daal seen gaz bi fii la nekk. yoon bañe ba ñuy bañe yaa ngi gis gaz bi fii la nekk lii bi kër yi ñeeg yooyu noonu buntu bi daa ko fii lañ ko teg wet bi fii yaa ngi gis léegi man bañ ma fëggee takk maa ci biir ma yeew comme ni ma la expliqué sànq may jéem a desserré bi ci la ma dóor dugg ma ci bët. léegi ki tëb ki gaañu tey tëb fan la tëbee. ki tëb. xaal bi mu amee xal bi fii la jël fii moo xal bi maanaam fee gaz bi fee ak gaz bi fee xam fii muy fee xal bi dafa takk fii waaw ba mu takkee nit mënul duggee ni nit mënul romb ni nit mënul def ni te nit ñaa ngi ci waaw fii la lii nii daal léegi si armoire baa fa nekk xam nga foofu nit soxlawu ko booy daw fii ngay bëgg di aw moom it bu jubal fii lay aw waaw mais bu bu mu takkee ñu jaaxle ba bi explosé loolu bokk na ci li ko gën a tiital. fii la tëb. moom fii la tëb. fii la yéegee tëb. tëb ci suuf tëb parce que fii la taxaw di yuuxu lu yàgg fii la taxaw di yuuxu gisul kenn ku ko jàppale mënul génnee côté bi côté bi mënu fi génne parce que xal baa ngi takk gis nga bunt bi xal ngi takk moo xam ne bu dajaaree foofu day booy léegi fii moo nekkoon dernière solution parce que amul beneen pexe. d'accord te moment yi muy tëb fii mi ngi nekk en état de grossesse. mi ngi nekk en état. mën nañ xam après ñaata weer. presque mun nañ ne cinq mois six mois mhm. waaw mu ngeen ne tax parce que jëkkëram la nekkoon bu mu ñibbisee fii amul sax quatre jours. xaw ma cinq jours affaire bii am. dafa jaaxle moo tax mu risqué jaar fii tëb. mu risqué jaar fii tëb yuuxu na ba sonn gisul kenn ku ko jàppale si. mu risqué jaar fii tëb yàlla def mu dal si fiilu lii. antenne yi antenne yi ak euh, si ligne yi. weñ bi sax daa mujjee damm parce que affaire boobu moo ko xaw a jàppale mu daanu mais moom bu ma ñëwee xam naa ni fii mooy loolu mënuma ne nit ki day dee si place waaye xam naa ne moom en tant que jigéen mënul muñ nga xamante ne ni méttit bu ëpp la. yaa ngi gis waaw ci la tëbee fii sama mag bu góor bi moom bu mu jaaxlee amul fenn fu mu jaar waaw parce fii mooy li ma leen expliqué rek sànq ñun deux lañ am te amuñu pexe sama mag yu bari dañoo loué yaa ngi gis léegi fii dañ ko def benn genre contreplaqué ba mu yegg ci ko yaa ngi gis. bugg aw ci balcon bi da ngay dugg ci buntu bi nga def lalam baa ngi nii moom nii la tëddee. ani sa mag bu góor bi tëddoon. waaw moom mu ngi euh, hôpital euh, Mamadou Diop moom moo ci xaw a tane tuuti ci gaañu gaañu mais tànkam yi lakk na ba mu gestoo contreplaqué ba ñu taaloon fii nee xal bi si suuf la aw parce que man moo ma gën a xamoon ni que sax gaz bee daa takkoon parce que mu ngi doon dégg gaz bi mais xam nga. bu mu jaaxlee xamul nu muy def muy bëgg a génn fii nii ak fee yëpp tàkk mënu fi jaar parce que xal bi affaire bi dafa bëri doole mais bu mu gestoo nii moom nee na xal bi da ko dugg vëpp bu mu ko duggee laajul benn ñaar sax dafa jug rek daw fii deuxième ñu ngi gis léegi ba mu demee deuxième mu toog xam nga tàng-tàng bi dara bu la dalee munoo munoo ko yëg waa léegi ci ci la xool fekk tànk bi li ko jëlee fii ba ci kaw dafa ñor bii même chose baaraam yi dañoo lakk ba kolew nii baaraamu tànk yi loxo mi même chose kanam bi noonu ndigil li laq te pourtant moom def na lu gaaw a vite fait génn waaw jërëjëf loolu mooy bokk internet yi ñu ngi leen di nuyu baax di leen siyaare di sant yàlla ci di ngeen ñuy toppee ci lépp li actualité rek di am fii ci Dakar Buzz ak Wassare ak euh, People 221 di wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ci yàlla lañu jóge ci lañu delluwaat leneen lu metti loo xam ne mi ngi tàbbi fii ci cité Barak ci benn famille boo xam ni kenn ku ne gis na luy véhiculé ci internet boobu léegi muy ak lakk gu fi am gu metti lool nga xam ne àdduna bépp a ciy waxtaan démb ñu gis ni maire bi nga xam ne moom moo ci ñàkkoon bakkanam démb ak beneen xale bu ndaw bi tey itam keneen ki nga xam ne moom lañ ci gënoon am ci moom yaakaar moom it mu ñàkk ci bakkanam leneen li ci gën a métti nag mooy ki ñàkk bakkanam tey dafa nekkoon ko jigéen joo ne jigéenu wérul la muy lu métti loo xam ne dal na ci benn famille ñu leen di masaw di ñaan suñu borom mi mën a jéggal jéggal leen ñu toog ak nga xam ne moom mooy Albarka Kairé kenn ku ne xam ko ci monde de la waaye li tax mu métti moom da cee bokk ci famille bi la bokk en même temps bu yëf yi di am lakk gi fa la ko fekk ba néegam sax am na lu jot a lakkaale muy lu métti loo xam ne dal na ci seen kaw tey ñu leen di masaw di ñaan yàlla yaatal seen bàmmeel ñu nan la demee ndax ah, tungu di comme yëf yi fa la ko fekk te ñi dee ay bokkaloon yu ko jege ñi ay tantam ay sëram ñu laaj ko yëf yi nan la demee albarke ñu ngi lay nuyu di la masaw di la jàll bokk ñu bàyyi la nga ñu yëg ñu lay seetaan. waaw maanaam waaw dinaan ginnaaw ma sant yàlla jul sent bi maa ngi sant sama ñaari bu baax nuyu Sénégal yëpp waaw ndax ci ji am fii ci sa biir famille nan la demee waaw li am moom ndogal dañ koy nangul yàlla rek que jaam moom nangu rek la am waaw affaire bi daal yàlla dafa nii la ko yàlla tuddee daal dañ koy sant yàlla bu baax Ah, man na ma tëddoon di nelaw waa ay sept heures huit sama rakk fëgg ma parce que dama biddanti dama naroon dem entraînement te booy bi may yeesi des fois bu ñëwee fëgg day déranger mère bi moo tax jour ma ni xaaral ma bi pour en bu ñëwee du fëgg day ñëw di dugg yeesi ma waaw yàlla def nag sama rakk mu ngi daan defar beñe waaw mu ngi daan togg daal ci biti waaw léegi mu ñëwee fëgg ma ma yeew caleçon kese laa sol bu may fëgg mu ne ma mbër ma ne ko waa mu ne ma jox ma bëggu gaz bi. kan fëgg laaj la bëggu gaz bi. bu rakk bu ma bokkal papa ne ma jox ma bëggu gaz ma ne ko waa baax na parce que boobu maa woon ci ay nelaw léegi ci laa tëb toog commencé tijji euh, gaz bi pour commencé dindi bëggu gaz bi man daal damay din deseere ba fu muy waay jeex rek mu mel ni nite ko lii daal affaire bi ne tëf bëgg bi moom ma dóor fii bu muy jeexee bëgg bi dóor ma fii euh, lii bi liu gaz bi di génn bu baax yaa ngi gis mel ni robine buñ tijji mooy air bi waa air bi nag man moom ma xaw a laal parce que xaw na dugg sama bakkan ak sama gémmiñ ba sama bët yi parce dama xaw a sëgg waaw léegi ba ma xawee laal xam nga dama jaxasoo daanoo ginnaaw léegi may foncer pour xëcc gaz bi jéem a bës lii bi si biir pour daal bañ voilà pour fàtte ko mais bi may xëcc gaz bi jéem boobu sax mayu ko parce que dama jàpp muy ñëw rek affaire bi gën a am doole ma xam ne lii mënuma ci dara soluma dara sama biir néeg yaa ngi gis léegi xam naa gaz bi lu mu génn lii ak doole di xeeñ foofu moo tax ba affaire yi jàpp parce que ñoom ñu ngi doon togg yor nañ beneen gaz di saaf beneen après teg fee këriñ di euh, tàngal café Touba parce que moom loolu lay jaay chaque fajar bu yeewoo da koy liggéey après mu dem jaay yaa ngi gis léegi daal affaire bi moom muy taw sama sama sama lii sama si buntu kër maanaam euh, rideau bi mu mu ci rideau parce que bi ma ñëwee ba daanu ji sax moom moom ma njëkk a daw affaire dafa am doole nu mu doon ñëwee mënu ma ko woon téye après man ci laa daw man ak moom fekk six personnes lañ ci kër gi. sama rakk bu jigéen bi te mu nekk ci état kooku da doon nelaw mooy ki gaañu tey waaw sama jarbaat bi moom dafa yeewoon bay waaj dem école mu toog noonu di xaar ñu defaral ko ndékkeem ci la accident bi am yaa ngi léegi daal affaire bu ñuy daw noonu di daqante maag man ak moom ak maire bi parce que sama mag bu góor tamit mu ngoon néegam tëdd doon nelaw moom comprendreul dara ñun daal ñoo fa nekkoon ñun ñun trois yooyu ñoo ñoo nekkoon ñoo xamante ne nalawuñu man ci ay nelaw lañ ma yee tijji gaz bi affaire boobu am léegi ba ñuy ba ñuy daw di wàcc escalier ma ak ñoom wàcc na bay suuf mais ba ñuy wàcc premier bañ koy wàcc man yëg naa ni kër gi tàkk na parce que affaire dafa jékki-jékki rek jàpp fuuf waaw te maire bi génnoon na ba ci biti moom génnoon na ba taxaw mooy avant ngaa dugg buntu kër bu mag bi léegi ci la bàyyi xel ni que xale baa ngi ci biir mu ne day daw dugg après ci la ma gars yi ne ngelaw li moo ko sandiwaat léegi nag moom dafa bërongu li ko jëlee si escalier ba si suuf looloo ko xaw a jàpp mu xaw a lakk tamit yaa man daal man bi ma jaaxlee xaw ma nan laay def mun aw ma benn pexe mënumaa fay gaz mënumaa def dara damaa mujjee daw parce que su ma dawloon man dama fay dee yaa ngi gis dafa sës mënuma ci dara taxaw de xëy na daw rëcc man ñaar yooyu noonu laa ci amoon bi may jeexal escalier affaire bi di exploser bi may jeexal escalier si suuf troisième laa jógee di daw. d'accord léegi maire bi gaañu ci ban moment la lakk parce que ñoom ñoo gaañ maire bi gaañu dem ak xale bi ndax ci ko sur le coup lañu wala jot na leen yóbbu waaw maire bi gaañ jot nañ leen yóbbu hôpital parce que sapeur ci boppam balaa moo ñëw fekk na maanaam jeunesse ñun waa koñ bi booyee ñun ñëpp fay nañ ko ba pare yaa ngi gis. moment yooyu maire bi gaañoogul. maire bi boobu dara jotu ko. man bi ma koy mujjee gis mu ngi toog ñu muur ko yére may wax moom léegi ci lañ jël sama rakk bi nga xam ne dafa nekk ci état ak sama jarbaat bi ñu dugal leen ci ambulance ne ma man maay ànd ak ñoom ak ñoom seto ma bàyyi fi après beneen bi ci la ñëw euh, jël sama mag bu góor bi ak maire bi yóbbu meer bi dalal jàmm jël sama mag bu góor bi yóbbu ko Mamadou Diop. sama mag góor tam dafa bokk ci làkk bi. dafa bokk ci làkk bi troisième la jógee moom da doon nalaw ci biir néeg bi. troisième la jóge parce que amul fenn fu muy jaar xal bi si diggante sama bunt ak seen gaz bi fu mu nekkee woon avant nga àgg si bunt douche bi ak euh, këriñ diggante bi daal la jël amoo fooy génnee. encerclé ko waaw amoo fooy génnee. d'accord bi loolu amee kan moo ci njëkk a ñàkk bakkanam waaw bi loolu amee nag ba ñu jël leen yóbbu ku ne hôpital parce que ñun dañoo nëbboon ni lii lañ nekk. xaw ma urgence mais dal ko ma dañu kaa nëbban xam nga waxee ñoo la waaw wax la leneen daal ba ma naroon jotee ak gars yi mais bañ leen yóbbee bañ demee benn fan deuxième jour ñu ñëw di laajte ñu ne kenn yeewagul après mooy quatrième jour bi xam nga troisième jour bi mooy euh, maire bi bu mu décédé loolu démb la parce depuis boobu ñoom ñëpp kenn yeewul léegi kii moo njëkk a décédé ku góor ki mooy sama jarbaat bi ki am sept moom moo njëkk a décédé waaw ba mu décédé après quelque tuuti rek daw na tuuti après ñu door ñu wax mère bi tamit décédé na parce que ku góor gi dañoo annoncé dix heures onze heures lañ ne gaañu na ni ñu nekk fii di jooy ak sama rakk bu jigéen mooy ki nga jëloon mooy yaayam léegi ci lañ toogaat ba quatorze heures ndeke moom it gaañu na ci la ñu wax ay quatorze heures ñu gaañu ñu toogaat ba dix-sept heures moins ñu woo ñu nee ñu sama rakk bi nga xam ne dafa jëloon biir biiram yàqu na. waaw après démb loolu lañu nekkee woon fii jot koor nekk problème yéeg ci lijjanti yu métti presque mun naa ne ay dix eh, seize heures moins lañ suul waaw ndax yéeg wàcc yu metti waaw ñu jóge fa yàlla def ñu ñëw fii waxtaan suñu biir ak yooyu noonu ba ñu tëddee ku ne ñibbee man man man nouvelle bi ma yeewoo mooy que. guy gi mii ci wàllu boppam nga xam ne fu mu dëkk ak sori moom moom ma parce que na mu waxeek ak man sànq man yëg sentir naa ne am na lu xew waaw damaa ñëw nuyu ko ñu waxtaan après mu ne ma yënga ci kaw ma ne noo yëgaguma mu ne ma kon yëgal ci kaw ñëw ñu waxtaan ba may yëg buur yàlla bi ñu sàkk xam na ne man maa ngi xalaat lu bëri mais boobu comme que waxuma direct ma ne garaawul baa ma jàpp ci yàlla rek ci laay yëg ci kaw ñëw xool waa fekk kenn nekku fa ma ñëw si benn maire bi di ko nuyu xam léegi ma ne xaaral ma woo sama mag xam kan moo nekk hôpital ba fële pour moom léegi ci laa woo sama mag mu ne ma euh, jëkkëram mu ngi fa woon waaye moom it mu ngi fa woon moom ma ko bëggul woon wax ma ne ko lu xew la ma bëggul wax xam après mu commencé di jooy si téléphone ma xam ne ni sama rakk yi gaañu na. mooy kii ëmboon kii ëmboon waaw. nu tudd nu mu tudd moom. moom Binta tudd Fatmata Binta. waaw ñoo bokk benn papa. accord maire bi tudd nan. maire bi tudd Khadijatou Diallo. Hmm, sa jarbaat bi tudd nan. sama jarbaat bi tudd euh, kii Bassirou. Konde waaw. Hmm. image yooyu boo toogee mu rafetlu waat sa bopp bi tey ñoo yow lépp fa la la fekk nee bi ngay génn sax kalsoo nga dawee génn nan lay def ci yow day tegaloo yi diggante démb ak tey ñetti bakkan yoroot ci benn ci yéen. man moom mun naa ne depuis affaire bi ba léegi tranquille ma cent pour cent moom su ma waxee maa ak moom di dox na may mais nit mënut a xëccoog yàlla man miy toog fii tey di wax mënoon naa dee sur place parce que dama doon jéem a jëngu dama doon jéem a jëngu pour fay gaz bi fa la force ñoo dinaa gaz bi mu ñëw affaire bi gën a yokk mel ni robinet buñ tijji ba mu sës laa lay wax lii ma xam ne mënuma ci dara dara dara looloo ma dawloo mais sur laa naroon dee affaire bu ma duggee ci boppam bu ma nekk woon kuy muñ dëgg kon man fa laay fa laay des sax parce que dama jaxasoo man dama xamatul fu ma nekk dama daan palanteer ba laa naroon aw barki Seydina Muhammad bi ma xalangoo palanteer ba laa naroon aw mais noonu mu yàlla def ma jàppandu ci lal bi rek dawaat mais génnuñu premier escalier wàccuñu ko maak mair bi ak sama rakk bu jigéen dañu doon xëccoo escalier pour wàcc laa la wax maire bi nag dafa delluwaat dafa delluwaat ne day jëli xale bi après ci la ko waa ci la ko ndogal boobu dal sama rakk bu jigéen bi amul fu mu jaar fépp tàkk na après moom ci la tëb troisième la jóge tëb bu du woon ligne yi ak euh, lii bi nu mu turee sax bu doon ligne ak fiilu euh, fiilu courant yi noonu nag yooyu ñoo xaw a wàññi daanoom mais ba mu daanoo man xam naa ne kii am na problème fekkeew ma nag daanoom parce que man dama jaxasoo dama tiit xaw moom fi ma nekk caleçon laa dawee ñëw naa toog si ASP lu yàgg man xaw ma sax fi ma nekk barki Seydina Muhammad sama rakk foog ne dee naa sama yenn xarit yi foog ne dee naa parce que maa yor moto moto baa ngi fële ma gaare dama ko dindi sama bunt ñu ñëw gisuñu moto bi gars yi commencé yuuxu sama rakk bu mu commencé jooy jooy yu métti looloo tax sax ma ne xaar ma génn xool li xew man maa ngi toog laa mais xaw ma lu man mënumaa comprendre parce que dama jaxasoo carrément. d'accord kon ki gaañoo tey moom moo tëboon ci troisième étage. moom moo tëboon troisième étage te taxul ginnaaw gi yëpp lakkoon na ak kanam bi. kooku tam moom moo nekkoon en état. moom moo nekkoon en état moom moo mujjee gaañu. Mm-hmm. ñu gis kenn ki nga xam ne tam moom la fi guy gi jëloon mooy seen beneen sœur bi moom jaaxle parce que ñim ñim ñim bokkuloon yëpp moom ndax ki doon jooy lakk gi fa la ko fekk. lakk fa la ko fekk man moomu fëgg. fekk moom fan la nekkoon moom. ci biir néeg bi moom moo doon defar beñe sax moo doon defar beñe yaay ji di ko jàppale moo ma fëgg moo fëgg sama bunt taxaw suma rido. di ma xaar ma jox ko beeg bi man damay deseere ba fu muy jeexee affaire bi def pëf. kon moom jot ta lakk moom. dara jotu ko parce que man ak moom ak mair bi dañ doon njëkkante wàcc escalier. waaw ah, moo njëkk a dañ doon njëkkante parce que moom moo ma njëkk a départ pour wàcc mais man dama leen dab noonu ñuy daw léegi maire bi ci la delluwaat dégg naa dugg ci biir. waaw pour jëli xale bi mënul jàll. léegi affaire bi nu mu takkee noonu ak gaz bi noonu loolu moo ko ngelaw li moo ko dal mu. xam nga rek mag la te dafa am jabet waaw kon bu yëf yi daanu bu yëf làkk kon xale bi mu ci biir moom. bu yëf di làkk xale baa ngi ci biir mais man problème bi mooy yàlla deful presque ñuy daje ci biti lu euh, maanaam ñuy daje suba si kër ga lu bëri su ma demee entraînement ñoom lu mu métti métti métti dix heures gën nañu kër gi wala onze heures doo fa fekk kenn léegi man su ma demee entraînement ñëw. su ma demee maanaam ma fajaru géej su ma ñëwee ay huit heures neuf heures mooy fa laa di fekk ma sangu dugg sama néeg tëdd onze heures ñoom ñëpp dem nañ man loolu bu muy am man xaw ma dama doon naloo dañ may yee may deseere ba kese kese muy muy lu doy waar lu daal sa kaw la tey nooy dundeek lii tey image yooyu tey ñi nga xam ne génn nañ àdduna ci ab anam bu bu bu gaaw bu yéeme et puis tegaloo non métti na su ma nee méttiwul damay fen parce que du sama nijaay du sama du sama benn mbokk essanné bu toog mbaa bu nekk firi déedéet mun naa ne depuis boobu mënuma lekk normal naloo mënuma kaa am sànq barki séer naa xam maa ngi wax ak guy gi ñuy waxtaan téléphone noonu ma ne ko waa mu problème maa ngi wàccu ñu noonu ma teg téléphone bi xaw ma nan laa def ba commencé waa départ waa jaxasoo am na essanné ñëpp a jaxasoo famille bi yëpp a jaxasoo quatre personne mais comme ni ma la wax rek yàlla kenn mënut a xëccoo moom mais daal bu ñu feebaroon sax ñu leen di seeti hôpital noonu noonu ndànk-ndànk amu problème mais fii kenn moom fi boppam yàlla moom kenn du xëccoog moom noo def la mu rek ay am mais metti na te ku ñu waxoon lii duñ ko gëm. tey ku bëgg a jàppale famille bi tey fan lay jaar que yu mel nii bu amee kenn ku di mën tey di def yoo xam ne nag su noonu tey ñan ñooy responsable bi ak tey ku bëgg a jàppale famille bi nan lay def parce que famille lëmb ñetti nit génn ci àdduna xaw na metti waaw loolu am na moom waaw mun nañ ne ñeent sax parce que biir bu yàqu doom la xam nga mais famille bi mun naa la esaan kuñ bugg a jàppale amul problème man maa fi maa leen fi nekkal mais li am ba am mooy du yaay moo dund du pap moo dund suñ benn nijaay lañ fi nekkal te moom fu mu nekk dafa sori ñun fii luñ ko xamalul du ko xam mbokk yi nag ñu ngi partout mbokk yaa ngi boor mais daal soxla nañ dimbal lool parce que man mii di wax ak yow Seydina Mohamed xam na ne lu ma sol dañ ma ko amay. léegi li ne woon ci néeg bi lépp lag à part bi ma sol laa wax à part bi ma jiital Seydina Mohamed xam na ne dara desul sama néeg ak bi nga xam ne damaa fàtte te dëng moom du ma faral di tëdd ak moom. sama téléphone dama ko bàyyoon sama këru rakk parce que sama chargeur bi dafa yàqu ma ne xaaral ma jokk mu branché ma ko pour suba si su ma yeewoo mun ko jël néeg bi lépp a lakk. amul dara lu des ba si sama néegu tànt amul dara lu des lépp waaw mais bu yemoon foofu dañu naan alhamdulilah rabbil alamin mais yàlla ñëwaat tamit wane boppam dañuy gën a santaat rek waaw. jërëjëf muy lu metti loo xam ne léegi après dinañ def la tur ku bëgg a jàppale famille bi ñun dina yor numéro Albarka Kaïré pour que koo bëgg a dimbali parce que métti na lii mu sol la dese te loolu lépp ko ñàkkoon boole ci bakkan yi des day gën mais kin ci amoon yaakaar sax ne yàlla mën naa def mu jóg moom moo wàcc liggéey sànq ba pare nekk jigéenu wérul kon dund na ñett ñeenti nit ñoo dem maire bi génn naa duna ak jarbaatam ak nga xam ne moom moo ci loru tey suba te nekkoon jigéenu wérul moom nag moo tëwee woon troisième étage ngir daw ngir mucc waaye suñu borom ne woon na ko foofu la ak dundam di yem ñi ngi ñaan yàlla yërëm leen te yàlla jégg leen waaye daal metti na dina leen ko toppal nag képp ku bëgg a jug pour jàppale famille bi boo nu woowee rek dinañ def la ba jox la numéro Albarka Kairé ñu mën koo jàppale. di ko jaal tam monde de la lutte parce bu dalee ci kawam dal na ci monde de la lutte di ñaan tam ne ko lutteurs yi jàppale te xam ne xale la te lii ko dal ke mu dal sa kaw di nga bëgg ku la jàppale. ah ko dimbali nag ah ñu dem toppal ko ñu ngi ñaan daal yàlla mais jotagoo leen koor bi ki génn àdduna waaw koor bi jotaguñ ko essence si loolu lañ nekk te mag mu ngi sama yan doom baay waaw dañoo bëgg xam yàlla mu sotti tey incha ñu réglé waaw. surtout wala gaañu wala dalal jàmm. moom surtout wala gaañu maire moo gaañu dalal jàmm moom ak euh, xale bi sax sama jarbaay yëpp surtout lañ gaañu waaw. xale bi ak meer bi moom denc nañ leen ba pare. waaw ah, xale bi ak maire bi denc nañ leen dëmb. ay 16 heures. jërëjëf. Serigne Cheikh Conté ñëpp ràññee ko ci réew mi muy le grand marabout la nga xam ni nag fajum cosaan yëfam la réew mi dañ ko cee ràññee xam ko ci muy faj nag di dimbali doomu aadama yi ci xam-xam bi ko yàlla seddee nga xam ni yàlla mooy maye yàlla daal di nag yëkkati xam-xam daal di koy may mu ciy dimbali doomu aadama yi lu baree baree baree baree bare ba réew mi yëpp xam ko feebar bu la jaaxal lu mu yàgg yàgg yàgg yàgg yàgg boo jëflanteeg moom feebar ba feebar bi ak lu ko mën a sabab dala koy dindil ba mu set wicc ci sa yaram listixaar gi nag ay la muy gis nga ñëw toog mu wax la sa démb wax la sa tey wax la sa ëllëg jàppale la digal la ay sarax leeralal la sa yoon kenn du sëriñ Cheikh Konte dina la jox ay cangat yu baax dina la gunge dina la ubbil sa wërsëg dina la defal kaaraange taxawu la woo leen ko ma nga nekk HLM 1 ci numéro bii di 78 397 65 93 mbokk yi sëriñ Cheikh Konte donte ngi noonu dimbali jaam yi dong la fi nekk